bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bokk yi asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu fu ñu leen baaxoo nuyoo muy fii ci RFM 94 point 0 ci Dakar ci kaddu gi seen mbokk Moustapha Ndiaye Bayla ci xarala gi ci jàppalante gi suñu mbokk Aliou Ba ci digital bi suñu jigéen maam Yacine puy di nuyu mbokk yëpp di leen ziar di leen ndokkeel tam ci weer kor wuñ nekk muy cheikh ramadan al mubarak di sant yàlla baax waaye julli ci yonent bi alayhi salaam mi nga xam ni ci moom la yàlla farataalu weeru koor jaar ko ci moom mu dem ci mboolem aw xeetam mu jullit yépp mbokk yi seen jataay bi di njàngaleem diine li ngeen ci miinoon mooy ñu ci daa ànd ak suñu mbokk Oustaz Mor Thiam tey yàlla dogal mu dem fële ca tele ba jàpp ci geneen wàll ga ñu ngi koy jéem a wutondi fii incha allahu taala ci njàngalem diine mi di nuyu soppe yëpp yu déglu RFM rawatina ñiy safoo njàngaleem diine nuyu suñu mbokk ma lay di Babacar Joxumpa ca Tëngéej Barham Diagne moo diggee Kër Massar El Hadj Diouf sopp da baax Basirou ca Fatick suñu mbokk moo itam di euh, di Ali ñu ngi koy nuyu di nuyu soppe yëpp rek ñu teg nuyoo soppe yëpp ci loxo ñu ma tudd ñuy boole géew ñu des ñëpp incha allahu taala xam naa nañ ko miine njàngalem diine dafay topp xew-xew yi xew ci lislaam di ci wax yi xew ci penc mi ci àddina bi di ci wax nag njàngaleem lislaam ci loolu waaye olof tey wax ni lu ay di njàmbat comme ñu ngi ci weeru koor danañ def benn fàttale bu ndaw jëm ci wàllu weeru koor farata yi insha allah yi xam mënta ñàkk war mu xam ko ak leen ci nga xam dafay yàq koor insha allah xam naa tam ci kanam tuuti danañ ubbi mbokk yi téléphone bi ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 pour ñu am laaj ci lislaam walla koor foofu la ñuy jaare pour jox seen laaj ci daara ji dañ jàngaleem diine incha allah jotoon nañ fi jot na ay laaj yu bàyyi woon ko yoon ci ñaari mbokk mooy suñu soppi bële di bàyyi jëy ca Mauritanie ak suñu mbokk ma tam di xaadimul quran ca Mbuur moom tam dañ fi joxoon aju ma jële jàll ñaari laaj daanañ ko jëm a tondi incha allahu taala door a ubbil mbokk yi nag ci 88 et 628 14 14 ولا 88 6 28 14 15 ما تكرم توت لدن ان شاء الله تعالى بوكي بورومبي سبحانه وتعالى مو القران مجتهد جني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه بروم بنينا فمن شهد كفك منكم تين جولي achahra weeru koor fal yasumhu na ko woral yàlla kon ko yàlla dogal ngay dund ba weeru koor ñëw nga xam ne yaa ngi dund fekk na la ci kaw suuf faatuwoo nanga nga wooral yàlla weeru koor kon farata joo xam ni kenn mënu ko defaaleel kenn kenn du ko gàddul kenn kenn mënu ci wut kenn ndax fardu ayn la faratay jëmm buñ ñu waxee ci lislaam faratay jëmm muy fardu aynin mooy loo xam ni kenn du la ci mën a wuutu yow rek yaa ko mën a def mu wàcc la defoo ko bàkkaar bi wàcc sa kaw kon nag woor weeru koor ci ko man faratay jëmm la léegi nag bu ñu waxee koor ci al arabiya muy ci la langue arabe ci làkk bi li muy tekki moom moom assawmu mooy firi al imsaaku wal kaffu an shay mooy nga jàpp sa bopp bàyyi dara lépp loo bàyyi rek jàpp ci sa bopp ci luxa loolu mooy koor boo xëyan tey ni duma wax ba ngoon woor nga ci la tée sa làmmiñ nga ci imsaak nga ci wala nga du ma dugg pala sàngam fii ba ginnaaw suba dangaa tée sa bopp ci dugg ci barab booba kon loolu dang loolu la jàpp sa bopp loolu la baat bi firi ci làkk bi làkk bi rek moo tax bu demee ci quran ca suratu maryama maryama alayhi salam danoon wax ni inni nadat lirrahmani sawman fa al yawma insiya tay mom dama wor ci duma wax ak benn mbindeef sen nga kon wor ci tisa sa làmmiñ waaye nag bu dee sharaan nag bu ko nag lislaam waxee ci njàngalem diine bu ñu as sawmu ci njàngalem lislaam mi moy déggin bi nga ciy am concept bi dégg-dégg bi nga ciy am boobaa wuute naag nag buñ ko waxee ci làkk bi rek mooy firi nag ci charia ci islam al imsaku an shahwatay l batni wal farji wa ma yaquum maqaamuhuma taatan lil mawla fi jamii ajzaa'i nahaari bi niyatin qabla al fajri lii mbokk mooy koor ci lislaam mooy lan mooy da ngay téye sa gémmiñ da koy tëj ci lépp luy ak lekk mooy doo lekk doo naan ëpp sa gémmiñ takk sa gémmiñ ci lekk ak naan waaye tam takk sa sex sa sawukaay ci bànneexu sëy fii fajar xare ba jant fenk doo fi sëy su dee jigéen du sëy su dee góor du sëy fii fajar xare ba jant fekk ba yi fenk fenk doo fi lekk doo fi naan te tey ko léegi nag nga def ko ngir lan ngir jaamu sa borom defoo ko ngir wu tur de déedéet defoo ko ngir da ngaa jàmbaar da ñeme xiif de danga nga ko def ngir jaamu sa borom topp yàlla léegi li tax lii baax na mooy danga koy yéene faw nga yéene ko def ko ngir jaamu sa borom yéene mënut a ñàkk. yéene dafa am nag yéene dafa am diggante bu ñu koy def mu baax ci lislaam yéene ñu ngi koy def ci guddi guddi lan mooy guddi ci lislaam mooy bu jant soo ba fajar di fenk loolu mooy guddi kon diggante bi muy wax ci nga mën a fas sa yéene mu baax bu dee koor farata soo ko fasee ginnaaw bu fajar fenkee nga xam ni salaat nañ ba pare nga door a fas ah bés boobu moom baaxut amoo ci amoo ci koor bés boobu baaxut de ndax amoo ci yéene kon nag yéene mënta ñàkk kon lii mooy koor ci lislaam mooy bàyyi lekk bàyyi naan fajar ju xar ba jant bu fenk fajar ju xar ba jant fenk bàyyi lépp luy sëy ak lépp luy bànneexu sëy waaye tam nag nga bàyyi lépp loo xam dafay wuutu lekk am yoo du lekk nii doo ko dugg wala sa wala nga naan naan sigmiñ déedéet mais jël place su lekk am na yoo xam ni buñ la ko buñ la ko pikiree vitamine day daanak moo ko lekk yam doo xiifati boobu tam day yàq koor kon tam boo waree eh, piqûre boo xam ni dafay ut lekk ci yow mel perfection yi ñu def nii boo ko xasee def sa koor yàqu na parce que alimentation yi nga war a am ci ci ñam bi dala koy jox kon dafay yàq ko ñu bàyyi ci xel kon lii mbokk yi mooy woor léegi nag woor bu ñuy woor bëccëg la ñuy woor bëccëg bëccëg mooy jant jant bu bu bu bu fajar ju xar fajar ju fenk mooy ay ñuy salaatu bakar jant yi sox di dugg loolu mooy bëccëg ci lislaam kii woor nag day woor ci bëccëg bi mais guddi kenn du ci woor guddi mooy lan ci lislaam mooy bu jant soo ba fajar di fenkaat loolu mooy guddi ñu bàyyi ci xel kon nag kiy woor day woor ci bëccëg bi waaye guddi moom sañ ngaa sëy sañ ngaa lekk sañ ngaa naan sañ ngaa def lépp dagan ci lislaam ba fajar di cinquante incha allahu taala ñu bàyyi ci xel woo nag am na ay farata farata mooy loo xam ni soo ko bàyyee ci jaamu yàlla gi zéro baaxut kon mat naa xam koo nag ay farataam bariwut ñetti faratalaam moom koor ñett mooy ban mooy weeru ne tàbbi nañ dugg ci weeru koor ramadaan bu dee da nga fa kenn weeru koor weeru koor fa weeru dugg comme ni ñekk nga xam dugg nañ ci benn ñaar nga yéene ko def ko te yàlla tax yéene nag am heure heure moom mooy guddi guddi ba kenn du ci yéene bu bu fekkee farata nga boo naafi la mën naa nekk mais fa koor farata moom guddi lañ ko yéen ñu bàyyi ci xel beneen bi ñetteel bi mooy lépp lu yàqu koor da nga koy bàyyi fajar ju fenk ba jant bi so lépp lu yàqu koor nga bàyyi ko li yàq koor na bëri na lool lekk tey ko dafay yàq koor naanta tey ko dafay yàq koor sëy dafay yàq koor yëkkati yéene mooy or ba ci bëccëg nga ne nga man léegi <tsk> damaa décider wóoratuma nga xam la nga si la nga yéene mooy yàq koor gi ah boobaa tam koor gi yàqu na nag lekkoo naanoo mais koor gi yàqu parce que da nga yëkkati yéene ji da nga am intention bàyyi sa koor gi ah boobu tam koor ga yàqu na ñu bàyyi ci xel kon yëkkati yéene tam ci bëccëg gi dafay yàq tam koor beneen bi mooy wàccu te ko tey wàcc boo xam yaa luuju mu génn wala nga xool loo xam ne xam nga boo ko xoolee wàcci nga pare nga xool ko ah kon yaa wàcc sa bopp boobu tam dafay yàq koor kon na nga dégg kon fekkee tëyoo ko dafa jékki-jékki ñëwul boppam ah boobu moom bu fekkee dara jàllaatut nga gàllaax ndiku sa koor yàquwut da nga wéy rek ne dara defu woon dara dara sikku ci koor gi inshallah taala kon wacc mo tay la wax ngam ya def effort yi tax mu ñew ah bobu day yak koor ben bi mooy liñ tuddé istimna istimna istimnaaw mooy fooy sa bop foy sa sex sa hawra ba sa man yu genn boobu dafa yak koor mom tam dafa xoon nañu bo xasee wor lepp luy jur banex dang koy bayyi mo xam muy muy muy rapport sexuel réellement bi xam ni nga xam da ngay sey deug deug wala bok li koy wut nga xam nga am banex do sey nit ñi xam ne xam nañ la bëgg a wax mooy fooye sa bopp loolu tam dafay yàqoor ñu bàyyi ci xel moo xam muy jigéen moo xam muy góor nag kon boo xasee woor rek sàmmal sa xawra bakkala ngay dog incha allahu taala ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi ci xel kon fooye sa bopp nag ba sa man yu génn itam dafa bokk ci yàqoor ñu bàyyi ci xel léegi xam naa ni incha allahu taala dañuy dugg nag ci tontu laaj yi fii jotoon ñëw ajuma jële jàll incha allahu taala door ubbi nag mbokk yi ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 ñi am laaj ci koor wala ci lislaam foofu la ñuy jaaree pour joxe seen laaj ci daara jiir njàngaleem diine ci RFM incha allahu taala ajuma jële jàll suñu mbokk mu baax male di bàyyi ji ca Mauritanie daf fi bàyyi woon benn benn laaj mu laajoon nii lan mooy taxawaayu nitug diine nitug diine ci biir réew wala ci beneen réew la wax lan mooy taxawaayam ci dimbali kuñ tooñ nga xam ni ñaara joti nee na tooñ gi fële la fës fëse nga xam ne kee moo tooñ lan moo ciy taxawaay nitu diine ci réew mi wala ci beneen réew la ci taxawaay nitu diine day ci lislaam moo nusratu al dimbali kuñ tooñ kii tooñ ñu ni ko baal tooñ kii tooñ ñu ni ko baal loolu mooy taxawaay nitu diine taxawaay itam bépp jullit mooy loolu itam nag ñu bàyyi ci xel mooy nusratu al mazlum dimbali ku ñu tooñ kooku waajibun yi la dafa doon loom lislaam moo ko digal bépp jullit mu dimbali mbokk mu ñu tooñ mbokk muñ tooñ kon loolu mooy li ci war jullit yëpp wàcc tam kilifa diine yi ñu jiiti diine ji mooy boo xamee ne diw dañ koo tooñ nga taxaw bam jot ak xam loolu warugar la ci képp ku nitu diine ñu bàyyi ci xel incha allah wallahu taala alam beneen laaj bi tam kuñ suñ mbokk male di xaadimul quran ca mbuur oustaz li moo ko laajal moom tam mu ne kii dafa yéenee woor ginnaaw bi nag moom mu tëdd nelawa nelawa nelaw ba jant bi fenkaat ca beneen bés ba fekkee dégg naa baax li wax kooku ndax kooram baax na wala baaxut waa xam nga yéene daa bokk ci faratay koor waxoon naa ko léegi ci faratay la bokk moo tax euh, euh, gis naa ci Sëriñ Tuubaa fu mu bind radiyallaahu anhu wax nii بمي لم فرت يقول أبوه نيتنا وكفنا عن مفترات لوجه باق مطعم بالطيبات من نيتنا موي سوني يينه يينه وكفنا عن مفترات اك ني باي ليب لو خام دا فا ياك كور لي وجه باخ غير جيم يالا اها اخلاص ديف كو تا يالا تخ مطعم بالطيب يال مي خام موي لخلت وي داغاني moo déglu ñu lekk lu dagan yàlla moomu da ngay woor ngir jëmmam mu ne nag koor am na ñaari farata mooy yéene ji ak lépp luy yàq koor gi nga bàyyi ko fajar ju fenk ba jant bu so kon nee dugg na foofu kon kii woor faw mu yéene léegi nag mu am ñaari ñaari façon yéene yu am ci ulama boroom xam-xam li ñuy wax boroom xam-xam lislaam yi mooy eh, bu weer yu xasee feeñ nga xam ne yow jeudi ngay tàmbale woor incha allahu comme démb nga ni damaa fas yéene wor weeru koor wi yëpp mu doon benn yéene dana valable man naa nekk almalikiya loolu la wax mën naa nekk doon am nañu ne nag bis bu nekk da nga war a yéene waat yéen bés donte loolu moo gën a dal xel lu tax mu gën a dal xel mooy bis bu ne ak jaamu yàlla la bële valable na waaye nag li gën mooy bis boo bis boo naree woor ci guddi gi. nga beesal sa yéene loolu moo gën a wóor mais baax na incha allah dama wax li gën a wóor rek waaye ba tey ba tey baax na dagan na nga yéene benn yéene mu yóbbu weer bi yëpp benn yéen doy na ci kaw nag ci kaw tukkiwoo fi tukki ba war a boo war a yàq ba war a ba war a doge sa koor wala nga am tawat joo tax na nga war a dog koor ah su boobaa nag fekkee da ngaa wér bay reprendre da nga yéenewaat danga nga yéenewaat yéene bees ndax bala yàqu na. tukki baa ko yàq wala ngànt ba nga am bu dee jigéen gis regalam yéen bu njëkk ba yàqu nañu bàyyi ci xel léegi nag ki woor yi nga xam ne yéen naa woor te di ba jant ba jant fenk nga xam dog jot na kooku moom war a incha allah dara sikku ci xëy na rek manqué ne tuyaa bay bëri yu ko rëcc ndax koor dafa doon diggante boo xam ni heure yi heure bu nekk da nga ko war a feesal dell ak ay yiw ay jaam ay tuyaaba te du yónente bi julli ci bi alayhi salatu wasalaam julli ci yonente bi alayhi salatu wassalam jàng alquran tasbihat tahlilat la ilaha illa allah allahu akbar yu bax yi nga koy wax pour dundal sa waxtu may na koor gam bax ni na incha taala incha allahu taala koor gi dana baax bu fekk di gën a baax li mbokk mi lim laaj wallahu taala alam xam naa kon ñu bil mbokk yi ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 incha allahu taala ko am laaj ci koor wala ci lislaam mën a jaare foofu joxe laajam incha allahu taala euh, ci vingt cent 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 ñu ne yu baax suñ mbokk mii di Papa Touré macha allahu taala ñu ngi koy nuyu moom tam mi ngi ànd ñu ci bi nuyu tam suñ mbokk bii di Mamour moom tam Mbaye macha allah ñu ngi koy nuyu moom tam mi ngi ànd nañu jotaay bi incha allah xam naa jël mbokk mi ba xam lan la bëgg a indi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Babacar Diakhoumpa ana waa Tëngéej. Hadj Moustapha Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar waa Tëngéej jëm fii di la nuyu di la mm, ziar. ñu ngi lay nuyu bu baax. di la ndokkeelaat bu baax di baalu àq ñëpp nag. waaw jërëjëf. di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole baal. amiin yaa rabbal bokk fekkee yoon di baalu àq génération Futurs Médias yëpp. wallaay di ci njiitu di jijël Alaaji Diouf sopp da baax. Mm, mm, waa di nuyu groupe bi yëpp. wallaay ndeysaan. li nga wax ci koor am na solo trop. alhamdulilah. Sëñ Tuubaa da ko fonkoon bu baax ba tuddee ko ya ya yaa xare day si. wallaay ndeysaan yaa xare day si ataa ataa bi bisri bishirul madadi wal madadi ahlan wa sahlan bila tarxibin wa tarxiban bila adadi macha allah bila adadi donc sëñ Tuubaa xoolal ni mu ko fonkee woon rek yow gan gi gën ci gan yi kon gan gi yàlla moo ñu ko jox kon ñu profité ci bu baax a baax a baax a baax moo waxaat ko yaa mutumal day si yow gan gi gën ci gan yi sëñ Tuubaa da ko wàcc yu bëree bëri bëri mu fonkoon weer yu loor moom sëñ Tuubaa lu mu amoon da ka daan joxe rawatina weeru koor loolu mi ko doon si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi newoon naa la ku tabe la woon mais rawatina weeru ko bu mësaan yi ñëw lu mu yor da koy joxe. Mhm, mhm. kon nañ ci jàng joxe ak solidarité ndax dëkk bi fu mu toll nii métti na trop. lay képp koo mën a dimbali nga dimbali ko te yàlla tax ndek lépp lu ci waay def. Mhm. yàlla da koy fulli weer yi weeru promotion la. dëgg la de. yàlla nee na weer yi weeru promotion lu ci waay def rek dama koy multiplier. lay ndeysaan. da kon nañ ci profité bu baax a baax. ak moytu tamit waxi caaxaan ak jëfi caaxaan. wax nga dëgg. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen man lam yada xawlu zuhri wa amala bihi fa laysa lillahi xaajatu an yadaxa wa sharabuhu yonent bi nee na ku bàyyil waxi jaaxaan ak jëfi caaxaan mhm. yàlla amul ci yow nga bàyyi ci lekk ak mhm. kon koor du bàyyi lekk naan rek déedéet moo ci gën a tuuti moo ci a tuuti jëfi caaxaan ak waxi mbóosóor yooyu nañ ko maytu mhm. plateau télé yi léeg-léeg nga gis ñu invité koo xam ne doo xam lu muy wax di koor am na yoo xam ne ni yàlla yàlla dañu koo tere yaa ayyuha lazina amanu laa tattaxizu lazina ittaxazu diinahum huzuwan wa la'iban wallaay ndeysaan kon bu leen jël ji di ko jàppee ay fooge caaxaan kenn du ko caaxaane dëgg la kenn du ko caaxaane léeg-léeg nga gis ñu invité ko muy wax ci diine ji loo xam ne ni mbitu réew ji dara loolu day te koor soxlawuñu loo ci koor déedéet li ñu soxla ci koor mooy ku mel ni yow di yee nit ñi di jàngal nit ñi ay muftiraatu saw li yàqu koor wallaay ndeysaan nit ñi mm-hmm, mm-hmm. que weeru alxuraan la mm-hmm. yàlla ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alxuraan nag day ramu. waaw dëgg la iqra'ul qur'aana fa innahu ya'tii yawmal qiyaamati shahiidan li ashaabihi. alxuraan yonent bee ko wax de. ëllëg yawmal qiyaam yàlla day alxuraan mooy jël Moustapha Ndiaye ne yow kan maa lay ramu ndax danga ma daan jàng guddeeg bëccëg rawatina weeru koor. yonent bi waxaat sallallahu alayhi wa sallam ne inna Allaha yarfa'u bi haazal kitaabi aqwaaman mm-hmm. téere bi yàlla ne dama ci yëkkati ay nit. ñu koy jàng di ko jëfee. dëgg la. Mhm. yàlla nañ ci yàlla boole. amiin yaa rabbal kon nañ ko fonk alxuraan dafa am solo trop rawatina ci weeru koor wii. macha la weer wi moo gën ci weer yi li tax mi gën ci weer wi alxuraan ci la wàcc. ci la wàcc dëgg la. sëru Ramadan la si unzila fiil Qur'an. fiil Qur'an. waaw yàlla neen xudan li naasi wa bay naa minal huda wal furxaan mhm. kon loolu yàlla moo ko wax kon nañ ci profité di si jàng alxuraan nafa temps bi ngay perte di dem yee di def naka sul noonu nga jël jëm ci fer ijjël jëm a jàng alxuraan loolu bénéfice bu rëy rëy rëy am programme koor am programme koor mhm. kon di la ñaanal yàlla di nuyu Baye Dieye bu baax moom monsieur Mauritanie maa ngi koy nuyu bu baax ñu ngi koy nuyu baax di ko ak Naba Zamba yi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ak euh, Jibi Sow seen daan mi ngi lay nuyu bu baax a baax ak waa Tëngéej yëpp mi ngi lay nuyu soxna Ramatoulaye Badji ak Souleymane Gueye fii ci téye ci Tëngéej téye ci Tëngéej ñu ngi fay ñëpp di jégalu nag ci kàddu yi lu ci jóg ci suñu borom la lu ci dëng nag jégalu yàlla di jégalu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa barakaatu kooku mooy suñu mbokk macha allah jaba Babacar Diakhoum ba ci Tëngéej musaaraga qayima macha allah yàlla na yàlla fay la yiw xam naa tam ñu nuy bataas suñu mbokk mi nga xamante ne bi tam mooy mooy suñu mbokk mi moom tam di ànduñu jotaay bi incha allahu di Mamadou Souare moom ñu ngi lay nuyu xam naa ñu jël mbokk mi bëgg a dugg ci daara ji incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah soxna si na ngeen def. ziar naa la bu baax. la bu ñu ko mënee xam dana baax. man la Naba Dia. eh Naba Dia Naba def. waaw ziar <laughs> naa nga dëgg wax nga dëgg Naba Dia wax nga dëgg. Euh, maa ngi lay ziar bu baax ñu ngi la ziar baax ñu ngi laa ziar baax di leen baalu àq di baalu àq ñëpp ñëpp yal nañu yàlla boole baal di baalu waa Futurs Médias ci kaw bu ci suuf dee te El Hadj di ko baalu àq bu baax wallaay ndeysaan di baalu képp koo xam ne ngi liggéey Futurs média hmm. auditeur auditrice waa Futurs waa waa génération Futurs média président Sopp Daba wallaay ah, ndeysaan ñëpp daal mhm. ah, moo duggee Kër Massar ñëpp daal ñu ngi parce que des fois dañuy dugg ci rajo bi. xam nga rek di wax. waaw yaa ma gën a xam. mais du dara dañu bëgg rek lépp baax. macha allah ñu changé jikko yi loolu kese la. am na solo am na solo macha allah dañuy jub ñeen kenn dañuy gën a góorgóorlu rek bëgg ndaw ñi baax. tegu ci yoon bu baax macha allah wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. Ah, di leen baalu àq di la baalu àq. bu baax ñu ngi lay baal àq da nga baal ñu àq incha allah ah baal nañ ñëpp àq. yal nañu yàlla boole baal yàlla weeru koor bi comme ni ko Babacar waxee. amuñu waa ñu ko waxee lu am solo la. dëgg la parce que sama mbokku jigéen ñi des fois weeru koor bi dañ koy xaw a caaxaanee. Mm-hmm. dafa am yu bëri yoo xam ne te koor moomu ko. déedéet weeru koor dafa sell dañ ko war a sellal. c'est important dox ah, ko li nga xam ne moom la moom comme ni ñuy wax weeru promotion la ñu góorgóorlu. lépp mm-hmm. daal sama mbokku jigéen ñi parce que foofu laay ci sol bi ak lépp daal nañ ci mm. bàyyi xel. wàññi téléphone nag ba ci kanam tuuti waaw waaw surtout whatsapp bi. bu mm-hmm. ko wàññi. bu ko mm. wàññi wallaay li ngay whatsapp bi am na leen loo ci mën a def. wallaay tiktok yi tam yëpp nag mm, ñu wàññi ko daal waaw ñu wàññi ko daal wallaahi. macha allah surtout sama borom jigéen ñi da ngaa. Mm-hmm. macha allah ah, di di jégal baax. am na solo na wax tamit comme lu Babacar wax. li nga mm-hmm. xamante ne amuñu ñu dimbali ñu am te yàlla tax. parce que des fois gis ñoo xamante ne surtout sama mboromu jigéen ñi dañuy yàq de trop ndogu ndogu boo xamante am na koo dendal wallaahi la azim amul lu mu ndogoo wallaahi te rus na ñaan war rus na def loo xamante ne mooy loolu ñu gëstu ñi nga xamante ne ñoo tane nit ñi te yàlla tax ci hmm. sutura di bañ a def ngistal di bañ a def ngistal waaw loolu baaxul waaw loolu rek la ñu ngi jégalu waat. am na solo Nafisa macha allah kaddi rafet maa ngi nuyu ñaatam ba. waaw di ko baalu ak bu baax si daal ñëpp daal. walaay ndeysaan tout le monde daal ñëpp ñuy liggéey Futurs Médias. jërëjëf macha allah jërëjëf Nafisa ñu ngi ko woon si jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla def na ñu fekkee ko rek sant yàlla. alhamdulilah sant yàlla bu baax. comme ça daal yàlla boole ñu ko fekkee nañ ko santee yàlla bu baax. mat na ko lool parce am na ñoo xam ne bëggoon nañ ko fekkee. fekkee mm. wuñ ko. dëgg la ñu sant yàlla comme fekkee nañ ko si jàmm ñaan yàlla ñu woor ko si jàmm ak salaam amiin yaa rabbal aalamiin yàlla nanguñu suñu koor nanguñu suñu jaamu yàlla. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf na am na solo macha allah walaay ndeysaan ñu ngi lay dégg daal ak sama benn doom bu nekk depuis Thiaroye. Thiaroye euh, Abdoulaye Sall maa ngi koy nuyu bu baax macha allah. ak daam ñoom ñëpp waaye ak Jibi Sow depuis depuis maa ngi jéggi. jërëjëf na sax am na solo am na solo merci jërëjëf. jërëjëf kooku mooy suñu mbokk macha allah Nabassa Mbaye macha allah moom tam xam naa ñu nuyu suñu mbokk mi di bayal ba macha allah mi ngi ànd nañu jotaay bi ak suñu mbokk bi di Zayer moom tam di Sini Mbaye macha allah moom tam mi ngi ànd jotaay bi ñu jël mbokk mi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ah Cheikh bi neen def waay. ñu ngi sant bu wér alhamdulilah. kooku du Demba. Ibrahima Khalilou Ndiaye Ibrahima Khalilou Ndiaye da ngaa nuyoo sama mbokk Malick Demba a ñu ngi lay fay ba Ibrahima Khalilou. ñu ngi la delloo ziar ba. tey a ma dagaat maa lay siraale ci internet bi saa yi nii. wallaay ndeysaan wax nga dëgg kay. <laughs> damaa toog bu yàgg bi nag xaaral ma dugg si ay ñu ngi laa ñu ngi laa ndaxte ci rajo bi. wallaay ndeysaan. mais maa ngi la nuyu di nuyu mboolem ñu lay déglu ñëpp. ñu ngi lay fay baax Ibrahima ñu ngi lay fay baax. alhamdulilah alhamdulilah waaw di ñaan yàlla yàlla dafa ñu dégg ak taw parce que defe naa stage moom wax dëgg seen waruwaay ñu koy def ci ci euh, ak en dehors de ramadan yëpp. Mm-hmm. seen jàngale yooyu moo ci war te ñu koy def. wallaay ndeysaan. li solo mooy dégg ak jafe rek. jafe gi moo ci ëpp solo nag. moo ci ëpp solo waaw te ñun ñoo lañu fas yéene ñaan yàlla defal ñu ko. amiin yaa rabbal alamin di ñaanal nag sama sama benn sëriñ. Mm-hmm. sëñ Basiru mbaki xel ko ah ma sha allah kooku moom sama soppe bu mag la ah. Ah, yàlla na yàlla sàmm ko te dafa may ko gëram ku bax nga ñaanal ko ku bax la ndeysaan mm, wallaay ndeysaan waaw yàlla nag yàlla dafa jamm ci sam ko bu bax may ko wér gu bu bax bax baax a na ci murtandi ku bax ma sha allah wallahi wallaay dina dina dina dina ñaanal yow tamit bu wér gu dama la wax rek yow ku bax wallahi yalla yene ba rek ma sha allah mo tax tollu suñu xel di nekk ci yow même bu na yow sori sax dañuy jéematu wallahi da ngaa baax njaay ah, ma sha allah ñu lay bay ci bay ci bay sàmm jërëjëf Ibrahima Khalil macha allah merci jërëjëf. kooku mooy suñu mbokk ma di macha allah Ibrahima Khalil Ndiaye di ko baax moom tam yàlla na yàlla sàmm ko barke liggéeyam xam naa kon mën na ànd ak ñun ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15. ñu nuyu baax suñu bokk moom itam suñu soppi bii di Moustapha Badiane moom itam allah tam Moustapha ñu ngi lay nuyu nuyu itam Cheikh Sarr moom itam Cheikh Kara Sarr moom itam ñu ngi koy nuyu macha allah taala nuyu itam Ba moom itam mi ngi ànd ñun ci bi nuyu itam Pape Touré moom itam mi ngi ànd ñun moom itam macha allah naka moom itam ñu ngi koy nuyu nuyu suñu soppi bële di Barham Diagne macha allah kon mi ngi noonu ko bëgg di mën a jaar ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 pour jox sa laajte yi daara ji di njàngaleem diini incha allahu taala waaw mel na am na kuy fëgg ñu xool ba xam kan la incha allah ku bëgg rek mën a jaar ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15. salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. oui. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah honorable député. waaw ah, yaa Oustaz. ngi lay nuyu bu baax. ah ana sa ca télé ah. waaw ah, xam nga moom nag dafa ragal koor foofu ngay gis leen de. <laughs> su ndekkiwul de ba rawatina mu dem ci télé ba nag na def dànk daal xam naa ne. waaw télé ba comme sedd na xëy na. <laughs> xanaa gars yi ko a ko volume rajo bi rek boobu gën a baax ndax moom wax bu baax bu ko weer koor ñëwee de. te <laughs> maa ngi koy nuyu wàlla baax. di nuyu euh, auditeurs yi ak ñi nekk ci. ñu ngi lay fay baax ñu fay baax. Euh, di wax rek di jégalu ñëpp nag di leen baal wàll ak tamit. di jéggal ñëpp man Mor Niang moom jéggal naa ñëpp yàlla nañu yàlla boole defal jàmm te yàlla dafi yi bëree bëri amiin yaa ñaanal tam suñu mbokk di moom ta oustaz euh, mu te ki fi njëkk na nekk. Mouhamadou Lamine Donde. Donde ndeysaan wala walaay ndeysaan. Donde Mouhamadou Lamine Donde incha allah. ah woo naa ko foofu ba taay ci guddi gi ndeysaan. am na ko yàlla xaar àjjana amiin yaa rabbal aalamiin. am na ko jaase jaase rek waaw mbokk yëpp rek. waaw xanaa li may wax rek mooy ndax ab jullit mën na jël alal nit ñi ba euh, shahru ramadan bi ñëw. mu jël mu jël alal mbooloo. waaw ba alal ba kii bi ñëw charu ramadaan bi ñëw. waaw ba lépp mu re remboursé leen seen xaalis xanaa mu toog foofu ne ñaan yàlla mu jéggal ko ndax yàlla mën na koy jéggal te delloowul xaalisu mbooloo moom mu jëloon. baax na incha allah laaj bu may laaj la nag. danañ toog incha allah. jërëjëf kontaan na. jërëjëf euh, macha allah ña ngi yàlla na yàlla fay la yow jërëjëf. kon mu ngi leen ko bëgg a mën a jaare ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 pour jox sa laaj ci daara ji di njàngaleem diine incha allahu jëm ci lislam wala jëm ci mbirum koor incha allahu taala xam naa li ñu tontu suñ mbokk moomu di sëriñ euh, Mor ñang macha allahu moo di ne rek wax ko ni loolu moom yàlla du ko baal déedéet xam nga lu tax dafa am loo xamante ni bii bàkkaar la am loo xam ne àq la bàkkaar moo tax diggante jàmbi ak boromam yàlla mënal ko baal moom ci mbaaxam baaxee noonu moom borom bi baaxee noonu mënal ko baal moom facilement am loo xam ne àq la sa diggante ak sa moromu jàmm kooku moom yàlla da ciy maandu faaw nga baal ba mu baal la ko baal la ko yimal xiyaam gën toppante ko kon loolu moom bu jëlee àq alalu jàmbur joxe ci ay ndogu tam ñam jox ndogu seen affaire baax na waaye moom du waaye moom du du du teewul àq ji mi ngi gàll ci losam yimal xiyaam fekkee ñi ko amel baaluñu ko. da koy fay ñu bàyyi ci xel wallaahu taala alam kon mi ngi leen ko bëgg dugg mën a jaar ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 pour joxe laajam ci daara jii di njàngaleem diini incha allahu taala xam naa ñu fàttali benn ñaan boo xam bu am solo la na ko mbokk yi bàyyi xel boo xasee dog rek nga jàng ko ndax ñaan bu am solo la jóge ci sang ba mu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu nu jullit bu dogee nga xam ne dog nga sa koor rek waxal baati mi bëgg a wax موي ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله بي موي نيان بي نيان بوخ سي دوك لي امي جوم نك ديكو نيان بوي دوك دي دا داغي خار با دوك بو باري سوكو نيان لا بو خولي نيوي لول لاي بعد يم تغلو موي داغي دوك بو سوكو جانغ نيان غي موي دمنا لان مو دم الظما مروي كون مونو مار مونتا دم ديدت كون داغي دوك ba pare nag nga door a jàng ñaan bi wabtalat al uruux mooy si di dafay tooy parce que boo xësee woor boo dogee boo naanee rek wala nga lekk si di da koy jël da koy jël mu ne wa sabat ajuru yool bi sax na incha allah bu soobee yàlla li muy tekk rek mooy boo xësee eh, dog dog nag moo am ñaari bokkut yi dañ koy jaawal mooy dog ak ndogu ba tey bokkuñu mbokk yi ndog mooy yëfu njóobeen du duy sibir ba mu fees loolu mooy ndogu <laughs> nga xam na ngay pare jël bisaab fee ñu baal ma ci gars yi ñu sant Diop xam naa ma ngoog koor gee tax dog ba pare rek lekk ba sa biir fees la mooy ndogu dog nag mooy rupture mooy dagg bi ngay dagg koor gi rek benn date benn tàndar mën na ko mais li gën na mooy kii dogu tam li gën nga xam mooy na mooy booy dogu tàndarma tam na tóol nga xam na nga jël benn tàndarma wala ñett wala juróom-benn wala juróom-ñaar day tóol daal moo gën su fekkee ne amoo tàndarma tam bu tooy moo gën Rotabat moy bu toy bi ni rotabat yi toy yi mo gën ci dog su fekke amu nga jël bu fekke amu ko nga jël ndox gox ay goxi ndox day tool tam gox ben gox ndox pour sakor sa koor comme amu tandarma wala ñett gox wala juróom benn ah, ma ngi jëm juróom ñaar dafa war a tool góox yi ñu bay ci xel kon nag mel na am na koy fëgg xam ma jël ko rek da mel tam waji neena ma duma ko mëna jël parce que waji neena ma tam bi kon fi lañu wacce kaddu gi di wax ni lepp lu jup ci wax gi ci borom bi mbaxam gi la lu dëng tam lañ bëgg rek mooy fàttali ak ak jàppale bokk julli incha allahu taala xam naa ko jox mbokk di daje ci kanam tuuti ginnaaw 15 euh, heures ak oustaz Mor Thiam ci tafsir Quran bi njàngaleem ko 17 18 incha allahu taala na ko